Le jeune accusé, mmh. c'est un patriote avéré, nëbbu ko jéemu koo nëbb. kon ñi naan mauritanien la enregistré woon. ñoom ñooy wax loolu ñoom dañuy soob rek ñoom ñooy coow coow yooyu c'est pas xam ah, il faut savoir que c'est un sénégalais Sénégal la juddoo am ay parents yow dama lay jox benn exemple bu fekkoon donte. donte defu ko. mais bu fekkoon loolu mooy cas yow genn wàllu APR gi nekk fii ñoom Baboy kan ak ñoom euh, Aliou ngay do yëpp ay Mauritaniens la ñu. Mm-hmm. Mm-hmm. tous les gars de man maa wax lii xam nga dinañ ko dégg. ñoom ñëpp ne leen ñu toppee ba diffamation c'est tous des Mauritaniens ñoom ñëpp kayitu Mauritanie la ñoom. loolu Afrique lañ ko fekk yow man ngaa juddoo Sénégal am ay mbokk Mauritanie wala sa yaay wala kenn juddoo Mauritanie. nga dem am kayitu Mauritanie. effectivement et eh, où problème. loolu loolu mooy terrorisme. loolu mënu laa def terroriste être mauritanien ne suffit pas être booy bi Sayer. Mhm. il a des frères. Sayer dafa am ay frères yoo xam ne. wala Serigne Fall wala Serigne Sayer Fall ok dafa am ay parents. am ay frères yoo xam ne ay cadres lañu. c'est des personnes yu jàng nekk ay professeurs. bitim réew. bëgguma tudd réew yi ndax de raisons de sécurité. mu am ay rakku papam yu nekk bitim réew. ñoom ñëpp ñu tekki du famille bu vaurien. moom nekkul ci mbeddam ah. c'est quelqu'un qui travaillait au Sénégal. moom comme dafa bëgg Pastef am pas-pas ci Pastef. loolu moo ko yóbbee problème bi. kon looloo tax gaa yi bëgg koo. looloo tax gars yi sacrifier ko dama lay wax gën a grave dama wax lu gën a grave. Uh-huh. gars yi bi ñuy topp jeune bi. amul benn accusation bu ko topp. bi muy jógee Sénégal bi mu yegsee fii dafa am ay jeunes yoo xam ne ñoom ñooñu la ñu jàpp Sénégal. oui bi ñu jàppee jeune yooyu comme ni ñuy def toujours rek ñu leen di torturer. waaw yéen taal fii jeunes yi ne leen ñun taaluñu lii. ñun on est quand même des patriotes et on résiste. c'est vrai bu marche amee dañuy génn xam nga ak suñuy xarit di di zambale. Mhm. mais lii ngeen ñu bëgg accuser ñun defuñu ko. Mhm. duma booy yi gaañ xam nga nangam nangam torturé comme ni ñu defoon france François Mancabou ba mu ñàkk bakkanam yàgg na yàgg na ba ñu torturé booy bi. booy bi ñu ne ko léegi kuy say xarit. Mhm. diinu tes amis. booy bi ci xarit yooyu la tudd Serigne. ah ñu ne voilà donc Serigne ci la bokk. tu as vu il a nommé ses ñoom ñu ne attaque attaque terroriste la ñu jàpp ay nit. nommé la léegi ñu dem jàpp jabaru sëriñ ils sont allés chercher sa femme parce que moom xamuñu woon fu mu ne ah. pour te dire il ouvre l'aéroport. Mhm. ils ne savent même pas qui léegi yow boo ubbee aéroport boobu. mu am ay terroristes yu jóge ci beneen réew. Mhm. jaaree aéroport international Dakar. ñëw dugg si Amérique indil loo Amérique problème. dans mon interview aujourd'hui je l'ai dit je l'ai dit nee naa leen Sénégal amul terroriste mais il risque très fort de vous délivrer des terroristes parce que vague boobu ñu ubbi ci aéroport bi ku nekk bu ko yëgee day jël avion dem Sénégal dem Nicaragua effectivement ma ne ko donc loolu nañ ko bàyyi xel mais Serigne voici son délit jabar ji biñ ko jàppee di ko laaj moom sax xamul woon fu waa ji nekk waaw parce que la plupart yi bu ñuy dem du ñu. voilà. Mhm. jabar ji bi mu demee. ba ci biir. lañ koy laaj di ko xam nga moom it di ko napp yëngal ko yëkkati perruque bi xam nga jigéen bu muur rek nga yëngal bopp bi ba karaw yi naaw. Mhm. jabar ji tiit. Mhm. jox leen téléphone ñu dem nag ci téléphone bi di xool communication yi di xool communication yi di xool communication ak jabar ji. ci lañu gis ne. wone mu wane na benn video muy dox ci àll. ñoom vidéo boobu mu wane dox ci àll ci lañ ko calculer ne ah Nicaragua la war a nekk donc ñu dem ci Maham Diallo <laughs> le fameux Maham jàllo mhm. borom euh, milliards yu bari yi juge bi gën a tekki ci Sénégal tey <laughs> Maham jàllo daal leen defal mandat d'arrêt international mhm. ne leen waaw waa ji terroriste la dafa bokk ci attaque terroriste xam nga fu ñu jëlee idée attaque terroriste boobu Macky cuune la mhm. xam nga idée attaque terroriste boobu fu ñu ko jëlee mooy attaque terroriste daan am Angleterre ci ñoom foofu la demee uti seen benn bus. Mm-hmm. lijjanti ko ba mu baax xaw ma soble lañ ci def xaw ma diwlin lañ ci tuur xaw ma nuñ ko defee. Mm-hmm. taal seen bus ñu ne donc ñoom it dañuy def ni Angleterre ko attaque terroriste. te Angleterre bus yooyu ñoom ñi ñu wax na ko attaqué. Mm-hmm. mooy islamistes yooyu ma lay wax. extrémistes yi jógoon ci yeneen réew. c'est pas des fils de l'Angleterre. yu nekk ci biir réew mi. c'est des islamistes. Mhm. extrémistes. léegi ñun ay doomu sénégalais yoo xam ne xamuñu luy extrémisme booy yi dañuy wàcce sax tubéy. Mhm. xam nga di bëgg àddina. Mhm. nga bëgg a jël booy yooyu rek laxas ay tour terroriste moi je je ne comprends plus ce qui se passe dans mon pays. vraiment Seydina ma la waxee. yenn saa yi damay toog damay wax nit ñi lii duñ ko gëm. sama bët yi da ngay gis néewi néewi bi ci suuf. ci ndoor dors pas. da ngay toog di xalaat Sénégal ne quoi qu'est-ce qui est devenu. moom pays le pays de Cheikh Ahmadou Bamba ah le pays de Mame Bou Kounta le pays de le pays de le pays de le mhm. nga toog nga xalaat réew moomu ku nekk ngi lijjantil boppam ñii ñu ngi tappale ñii ñu ngi jiiñaate ñii ñu ngi jàpp ñii ñu ngi rey ci réewu senegal mhm. vraiment war nañoo toog xool d'accord ndax yéen da ngeen pare ngeen pour taxaw Serigne parce que dégg nañu ne sa avocat mu ko jël mais absolument pour mën ko Serigne Serigne bu soobee yàlla taxawaay bu taxawaay yem ak lu mu mën a couté ak lu mu mën a jar dinañ ko taxaw. et les sénégalais vont le faire on va se mobiliser. incha allahu rabbi ñu taxaw ko ci fànn yépp du ñu nangu benn yoon. ñu koy sacrifier. loolu du am l'avocat Craig comme ni nga ko waxee. c'est lui qui le représente. te ñun ñëpp ñu ngi taxaw prêt. pour vraiment taxaw ko ci bépp fànn bu mu soxla. ak lépp lu mu soxla. taxawu njabootam. ba incha allahu rabbi yàlla génnee ko ci guute gi. ñun dëgg rek moo ñu ñor. sëriñ bu nekkoon terroriste ñun ñoo koy paas Sénégal ndax ñun bëgguñu terroriste suñu réew. effectivement sëriñ dina nekk bandi ñu koy bàyyi ci réew mi muy yàq suñu dara loolu yenuwul maanaam mais du ñu bàyyi aussi doomu jàmbur ñu koy sacrifier ci ay caaxaan. Mm-hmm. te j'en suis sûr et certain que sénégalais yëpp. ñoo xam ne dëgg moo leen tax a jóg ñoom ñëpp dinañu taxawu jeune bi incha allahu rabbi ba jafe-jafe gi bii nga xam ne moom lay dund mu génn ci mu delluwaat ci njabootam ak jàmm euh, ndax yéen a ngi déggante euh, parce que ñu ne ñoo ngi programme pour mu am master hearing pour absolument absolument ñu ngi déggante ak avocat yi ñu ngi waxtaan am na yu bari yoo xam ne mënuñu koo wax yëpp mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla mm-hmm. Euh, li ñuy ne client attorney privilege. Mhm. am na loo xam ne client bi ak avocat am seen diggante la war a des. Mhm. mais ñu ngi préparer hearing bi. Mhm. te hearing boobu moi je serai témoin. comme ni ma ni ma la ko waxee j'ai déjà été interviewé dans certaines situation te wax dëgg yàlla fas nañu yéene. buñ fa demee. Euh, ñu wax li nga xam ne rek mooy dëgg te yàlla tax ndax ñun ñëpp kenn ku nekk ci ñun boo génnee àddina <laughs> yaag sa bàmmeel la te yow donc yaa fay nekk voilà donc euh, wax ci lu dul dëgg jaraluñu ko mais j'aurais dû mm-hmm. euh, dànkaafu gouvernement Sénégal ne mm-hmm. lii du lug bu baax ci ñoom mm-hmm. parce que question yi ñu fay laaj yëpp c'est des questions yoo xam ne et pretend to Sénégal te is gonna be in Sénégal's record te wax dëgg yàlla guddi yi ñu tollu record bi Sénégal am ba pare du bu baax. Mhm. donc leneen lu ñu ci mën a yokk pour man daf leen di gën a yàqal waaye du leen defaral jërëjëf.